ba tey ci seen scandale du jour Cheikh Bara Ndiaye ginnaaw accusation yi nga xamante ne defoon na ko ci ki nga xamante ne mooy waa Jamra ñoom nekk yëkkati nañ kàddu yeneen yëkkati ko ba tax na rek Jamra retiré li nga xamante ne moom mooy plainte bi ñu déglu ci kàddu Cheikh Bara Ndiaye ñëwaat. wax contre wax la parce que ma Matar laa xam koo xaw ma ko. yéen xaw ma turam sax maam man wax. Hmm. kee daf maa wax. kii itam mu jaral ko mu jël téléphone am wax ma. Hmm. du ci toog mu mel ne man dama dama gëm lale ba loolu tax damay retiré lu mu jëli euh, propos xaalis yi ma waxoon ne ah day jël xaalis kon ndang nangam nangam waaw noonu ma ko waxee woon noonu mm-hmm. retiré naa ko génn nga ci parce que noonu laa ko waxee Mame taar ne ko nag vraiment boo ma jotoon mm-hmm. waaye xamoo woon ne dinaa ci wax mais su ma xamoon ne tamit wax ji te nekkul luñ mën a luñ mën a weddi la wala yow mm-hmm. weddi nga ne loolu amul du ma ko wax dégg comme nag leer na ma ne que ne ah yow kat d'accord woon ne loolu lu am la maanaam da nga ne loolu lu amul la ah wax dëgg yàlla man kon jàpp naa ne damay yam ci li nga ma wax hmm. te retiré la ma waxoon hmm. waaw dama koy jégalu sax hmm. donte nag yàpp ah, ah, ah, xam nga sax rëy baaxul quoi ay tooñu ma kook tooñ naak mais nit moom boo tuddee turam sax di wax ci moom rek xëy na bu ko neexul rek tooñ dafa sew daal nit moom mooy xam ba xam tooñ nga ko wala ko maam maxtaar Gueye bu Jamra sëriñ Fallou Gumbala xam naa dinañu ko affiché suñu waxtaan wu mujj fii dañoo waxtaan ba dugg ci mbirum Jamra nga am loo ci leeral leeral gàtt da am xaalis boo tuddoon boo xam ni dafa bàyyi ko woon ci sa jëmm ngir xeex bu Jamra doon xeex organisation boo xam ne ci wàllum organisation yow jël nga xaalis daal leen di jox ginnaaw émission bi nag am na ay polémique man jokkoon nañ fii ci ginnaaw waxtaan nañu. amna na ay kàddu yoo xam ne waxtaane nañ ko man ak moom waaye dama lay bàyyi rek nga indi après ginnaaw vidéo bi polémique bi mu def ak yi ñu ci bëgg defaat ñu ko imam Makhtar di wax ni nag na nga xam li ngay wax ndax man léegi bientôt membre Jamra laay doon waaw man fi mu toll nii fii ci plateau bii am na lu muy demee man ngaa def loo xam Jamra war a dal sa kaw ma dal sa kaw waaw ah, la ma wax rek de membre Jamra laay doon. waaw l'essentiel dal waaw ñu ngi ziara waaw. di nuyu ma maxtar di ko ziyaara moom suñu woy jur la mhm. euh, ba ñuy laaj keroog duut accusé mais dañuy laaj mhm. ndax li ñu laaj dafa bàyyi ko ci ñun mhm. ñu jox ko kenn ci ñi ñu bokkaloon organisation boobu ñu doon def gannaaw gi bi ñu laajee lii ñu laaj ci plateau bi Oustaz Makhtar Sarr jokkoo na jokkoo na ak ñun wax ak ñun fa xaalis ba dugg ak nañ def xaalis ba ak finance yi nga xam ne moom lañ ca def ak la ca des fa mu nekk mu wax ni ma maam maxtaar laalewul ci xaalis gisul xaalis kon nag ñun dañ doon laaj laaj boobu ñu doon laaj nag leeral yi rek lañu soxla parce que moom li mu ñu wax mooy maam maxtaar ci jour boobu ci communication la nekkoon maanaam moom Mame Mactar gisul xaalis laalul xaalis moom ci wàllu communication bi la ci wàllu communication ba la nekkoon mhm. kon su ko defee loolu la ñuy leeral mhm. di ko jéggalu insha allah mhm. ndax dañ doon laaj rek mais gaaraluñ kenn pour wax kenn lu ko brutaliser ba bu tëddee du nelaw ñaanuñu loolu yàlla ñu ngi koy jéggalu di jéggalu mbooleem ñi nga xam ni ñooy sénégalais yëpp di ziar ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk combat yi nga xam ne moom lañuy ñuy xeex yàlla dafa dogal ci biir ànd sàmm jikko yi ci lan bokk ci waaw te des fa ngeen daje ci ay xeex. dañuy daj. waaw loolu de lu baax la boo waxee wax ba dem ba ci biir nii xam nga xam ne wax ji voilà wax ji li nga wax du dëgg voilà par modestie par modestie war nga mën a toog xam nga xamal nit ni ko da nga juum voilà baalu nga ak et on passe à autre chose li gën a doy waar kay mooy nga wax lu dul dëgg nga fen ba xam ne da ngaa fen bëgg gëmloo nit yi say fen loolu moom mënta nekk mënta jàll mais nag boo waxee dara ba gis ne yow da ngaa wax da ngaa juum ba xam da ngaa juum. xamal Sénégal yi da juum ah Matar Jamra nit la donc baale na ak ginnaaw li nga ko waxal yëpp kii na plainte bi loolu c'est sant yàlla bu baax ndax nag nee naa leen jamono jii lu waay di lu waay di wax na la wóor lu mbindeef di wax nala la réew mee toll foofu ka kaa yee critique kaa yëg te ñëpp yéen mën mën yi comme tulleeg màlle plainte yi comme tulleeg màlle koo wax sa bu xonk na sa mu ne la plainte man dama raagaar plainte de pelente ñaata ngay fay pour porter pelente pelente da ngay fay nga xamni am ñoom ni pelente yomb na len de motax wax lu la leer lek bo waxul lu la leer pelente hmm justice kesse amul lenen waaw kay jadi jadi jolo daw yoon liggéey TV